ni alquran waxee ne farata la ci góor mu takk ñeenti jabar yàlla daganal ko ko noonu la nekkee farata boo xasee takk ay jabar nga yemale leen loolu farata la de lu jar a bàyyi xel na ni mu ni mu ni mu daganee ci sa doom yi noonu la daganee ci sa jabar. noonu la dagganee ci jabar yi te nag ci jabar yi la raw parce que ci jabar yi di nga di nga gis daan bi ci rasulullah wax njool màkk daf ne man kaana lahu imraataani famalla ila ahaduhuma jaa yowma alqiyamati wa ma shiqaqul maala njol màkka nee na sallallahu alayhi wa sallam ku am ñaari jabar yemale woo leen am ñaari jabar aaw ak ñaareel yaa xam ñetteel ak ñaareel yemale woo leen parce que dañuy toog naan ñaareel bi ci kër gi euh, xaritu jëkkëram ak ba lu mu bëgg nangam aawa bi nga jël sànni nekk ya caaji ñool màkk nee na ku ko ci def ëllëg yowmal xiyam jeng goog nga jeng booy ñëw dangay ngay jeng yow moom boo ñëw da ngay pant. nii. waaye pant kay ngay def moom ba ba ci suuf. di doxee nii waaw te pant googu nga nga pant mooy wane ne nag tabaarakallaahu da nga da ngay am dum yàlla. yomal xiyam. Eh. ku ñëw kam ni la yàlla bindee rek ngay mel. ku mel ne nen rek xamal li mu bëgg la <laughs> ku mel ne nen rek sa jëf jee ko may. ah nu muy ku mel ne nen rek jëf jee ko may. yi am na nu ñuy mel. ñoom ñoom nu ñuy mel. ñi nga xam ne duñu julli ànd nañu ñu leen xàmmee nag di ñëw nga xam ne ñii waa ahlu seykat yaa ngi. waa ñi nga xam ne duñu julli am na nu ñuy mel. Uh-huh. si maam fi wu ñi nga xam ne yàqkatu der leen. Uh-huh. am na nu ñuy mel. Uh-huh. ñuy doxal mission saytaane yowmal xiyaam tamit am na nu ñuy mel. yomal xiyam ku ñëw rek ak màndarga booy màndarga booy jël. <laughs> ku nekk ak numéro. waaw ku nekk rek ak mandarga booy jël ñi jëf lu baax nag mand bu ñu ñëw nga xam ne ñu ngi ñëw. ñi nga xam ne seen làmmiñ yi téye ko ci deru nit bu ñuy ñëw nga xam ne ñu ngi ñëw. waaye yàq niveau la ku ne rek ak ni ngay léegi nag jol màkk nee na nag ki nga xam ne am na ñaari jabar moom mànduwul bu ñëw yomal xiyam moom day pant. ñu ko yor ñeenti jabar te maanul. waaw pant Oustaz euh, euh, par exemple euh, yaa ngi woon ci mooy point bu njëkk bi nga ma soulever léegi léegi. Mhm. da ma ne jullit bi yenn yi moomu ko. waaw te foofu ñor na ma lool. dama dama dama ci lu néew sax. Mhm. tabaarakallaahu bu dee màndu. Mhm. wax naa la ko onze point taxaw na ci ci borom téer bi lu mu wax. bu ñu waxee adlul insaan ma an nafsihi baada taadidi li xalaka allah li xalaku qawlu taala ak tamit addulul insaan maal asratu wa bayna raiyatuhu addulul maal yataama an yaxfusa ala amwalihum addul bayna mutaqasimina addulu maa ahlul kitab addulu fil xakkami addul maa ahlul kitab boobu nag man mooma yitteel mooy waaw kay yàlla dafa wax ne addu yi nag yëpp bëgg naa ci ñëw waaye comme bii nag moom mooy tet bi ñu ñëw ci rek ba beneen yoon ñu ñëw ci yeneen yi insha allahu taala yàlla dafa wax ne abdulu maa ahlil kitaabi xaala taala li nabiyihi li nabiyihi la wax yàlla nee na li nga xam ne joxoon na ne ko ca yonentu yu njëkk ya màndu leen ci waxuma li ma teree sax waxuma lu ma tere de li ma leen joxoon sax laa wax maanaam li nga xam ne joxoon naa ko Moussa wala Insa seen waa xeet di ko jëfandikoo màndu leen ci seen yoon nekk lu dul ma indiwaat ko ci ci ci alquran indiwaat ko ci diinu Muhammad mandu leen ci waxagul nag li nga xam ne dañ ko inventé ñëw teg de. mooy lan. waxaguma yooyu noonu de yi gars yi inventé ba pare jullit bu xamul dara ñëw bëgg a taxaw ànd ceeg ñoom mooy woote gu ñuy woote ne Insa doomu yàlla la Insa doomu Mariama képp la doomu yàlla. d'accord alquran nag moo nañu laa nufarriqu bayna ahadin min rasuli adduna bi dafa naq dee waxee waaye nag yuntu yàlla Eesaak yuntu yàlla Muusaak yuntu yàlla Ibrahima ak Noox yuntu yëpp ñoo yem alquran daf nañu bu leen téqale te di di alquran moo nañu bu leen téqale Muhammad ak gaa yi nañu yem bu leen jël yonent bi teg ne jël kii teg ne laa nufarriqu bayna ahadin min rasuli yonent yëpp daal yonent yonent ay yonentu yàlla leen yàlla moo leen yónni. ñoom a war ñoom ñëpp moo tax koo ci fekk ci alquran gis yàlla màggal ko moom mu màggal yàlla koo ci gis fekk yàlla màggal ko mu màggal yàlla ci alquran kon nag diinu Muhammad bu yemalul woon yonent yi bu yemalewul yonent yi du jël Insa ko màggal ci alquran di jël Muusa ko màggal ci alquran. du jël Ibrahima di ko ci màggal parce que yonent yooyu dañoo def li yàlla bëgg jàll ñu deful nag li yàlla bëgg mooy ñu ñëw seen ginnaaw jël téere ya ñu yoroon tawreet changé ko soppi xam nga soppi. mooy nga jël téere bi modification. mooy nga waaw mooy jël téere bi boo xoolee gis na lii neexu la. nga dindi nga effacé def ca la la neex. maanaam nga yëkkati téere bi xool la la ca neexul effacé ko def ko loolu nekk tawreet nag ba léegi même même que déglu même alquran bi ñaata lañ ko bëgg a modifié ba léegi ba léegi ba léegi gars yi dañ koy bëgg nag waaye mënuñu ko loobi yeegee caaj bi dañ koy bëgg waaye mënuñu ko déglul alquran wa is qaala Iisaa bnu Maryama yaa bani inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad boo demee tawreet dindi leen ko te alquran yàlla wax ne ma nga ca tawreet Muusa wax ko muy wax ju biir ñu ñëw effacé ko wa ida laqu lazina amanu qaalu amana wa ida qala baaduhum ila baadin qaalu ataxadasuhum bi ma fataha allahu yaxadikum bi inda rabbikum afala taaqiluun te xamuñu nag aw laa yaalamu anna laa yaalamu maa yusrun wa maa yu'linuun alquran nee na yéeféer yi ni ñu laan def mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo doon dund loolu nëbbaate bi moo xam yahud la walla nasaraan xam nga jàng neen seen téere yi muy liin linjiil ak tawreet ñoom jàng neen jàng bu wér bu wér yow ne ne ne ëllëg bu seen yonent yi jógee mu jug jamono yonent buy mujj mooy Seydina Muhammad ñoon jàng neen ko mu leer naaj léegi nag am ci ñoon ñoo xam ne bu ñuy dajeeg saxaaba yi leen nag ah ñun de jàngoon nañ suñu téere yi ne moom nag wax dëgg fa yàlla nag Muhammad ëllëg moom mooy ñëw te mooy sang bindee fii mooy yonantu buy mujj ñooñu bu ñu demee rek sa seen ñi leen kili ñi leen yilif ñu dal seen kaw. ne leen kii mooy yonantu mujj. na leen yéen lan lan moo tax ngeen dem di leen wax loolu noonu. nan leen yéen Muhammad mooy yonantu bu mujj. ni ngeen ko jàngee lañu ko jàngee waaye dañu koy nëbb. mu ne leen bu ngeen leen waxee loolu ëllëg yow ëllëg dañ leen mën a ci wax. bu dagg santé amee ñu ne leen ah yéen kat diw wax na diw ak diw wax na diw attaxaddasuhum bi ma fataallah li yuhajjikum ndax da ngeen di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne yàlla wubbee na leen ci ba ëllëg ñu mën see dagg santé ngeen li yuhajjikum yàlla nag nee na xam nga yàlla moom ku mën a ku mën a ku mën a defante la mu ne ña ngay wax nag bi inda rabbikum afala taqilun yàlla ne aw laa yaalamu ana laa yaalamu maa yusuruun xanaa xamuñu ne yàlla ci boppam ñoom nag dañoo dof ba xamuñu ne yàlla xam ne li ñuy nëbb ak lu ñuy feeñal ñoom nag ñoo ñëw seen tabret ñu bind fa la ñu fay bind xool la leen neexul ñu dindi xool la leen Yeesaa wax loowul ñu ñëw bind ko fa ne Yeesaa doomu yàlla la lu yàlla ah. moo tax ëllëg yow mal xiyaam Yeesaa dina taxaw yàlla ne kaay approché mu ñëw mu ne ko ah sa yi dañ ne woon doomu yàlla Yeesaa taxaw moom it ci fulam ne ko ah lu ma wax xam nga ko lu ma waxul xam nga ko faat nga ma bu yàlla faat nga ma bu yàgg bàyyi leen fa lu ñu def seen ginnaaw nag kooku ñoo na ñoom la concerné ñoom loolu nag loo ci bëgg a jàng li tax nag yàlla di ko njëkkee nga Insa boobaa nag ñi nga xam ne dañ doon taxaw ne doomu doomu yàlla leen jàkkaarloog la nga wax te saa si danañu xam lu xew nag yëg ne nag Insa du doomu yàlla xanaa da qul huwallahu ahad rek daa doy sëkk doy na sëkk yàlla kenn la mooy ku ñu jublu te soxlawul kenn ci yéen gis nga yàlla daa pare. wallaahi yàlla fexe na ba nit ñi di soxla ci moom te soxlawul kenn soxlawul dara kenn daraay kenn. moom yàlla. yàlla fexe na kan. ba nit ñi bu ñu xëyee di koy dëtmal. ku ne ñaan te moom soxlawul kenn lenn. allahu subhanahu wa taala. wallaahi kooku kenn du moom daa pare moom. moom pare na ba fexe dina faat ñëpp te moom du faat moom. leer. loolu loolay pare boo paree rek da ngay pare ci définitivement. léegi nag ñi nga xam ne dañoo topp feet bi feet bi daal ñu bàyyi xel ne. mais feet bi feetu lan la d'abord. juddu yuntu yàlla Iisaa la ñuy màggal. waaw léegi ñun waruñu koo màggal. juddu yuntu yàlla Iisaa mën nga koo màggal kenn weerantewu ko. kenn weerantewu ko mais daa am lu ci rax. lu ci rax màkk nee na man tashabbaha qawmun fa huwa minhum. muy aw nit la ñu woote woo nga fekk ca leen ca. yaa ñoo yen bokkul nag. booy déglu ma booy màgg. waaye ñun dañoo ne nañu gëm yonent yëpp te Aïcha ci la bokk. ba may départ xanaa déggoo li ma wax. waaw comme que gëm naa loolu man gëm na ñun nuñ ñu ñuy màggalee juddub yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam. waaw mën nañoo màggale noonu juddub Isa. waaw kay yow juddu Moussa. alhamdulilah alhamdulilah. ba xam ñëw nga nag li nga wax nii nag moom dama lay laajaat question man man kan. jullit nga. koo gëm. ak yonent yëpp doole yonent yëpp. yonent yëpp kay. risaala kan ngay doxal. Mhm. risaala kan risaala kan ngay doxal. yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ah. njool màkk la permettre. nga dem concert. di màggal juntu yonent yàlla Iisaa loolu respecte yonent yàlla Iisaa. waaw loolu ça dépend ci ci ci degré yi. xam nga oustaz xam nga ku nekk ak ni muy fêté anniversaire am <laughs> comprends xam nga tey jii. yaa ngi bëgg a dugal te mën na mën na ko. tey dugal xam nga nu ma dugal man nga doon bëgg di dugal tey dugal naa non non en fait parce que ñun par exemple comme ni ñuy defee daayira yi comme ni ñuy defee yenn yenn genre yenn. loolu nag mooy màggal yu teel a sax daayira yooyu ak yow julli. xanaa xam waaw déet parce que gis nga par exemple ñun suñu mbokk laayeen yi. waaw ñoom chaque Noël dañuy julli ñaari rakk. waaw. ñoom chaque Noël. baarakallah guddi chaque Noël guddi. dëkk laay nii ñu may dégg xam nañ li may wax. waaw Malika Cambérène. waaw waaw ñëpp ay daje ci benn bërëb. Mhm. à partir de minuit. wala 23 heures et quelques ñoom ñëpp ñu jullit ñaari rakk def seen ba def seen lii nii lem seen i dem. waaw man couvrir naa ko ba tàyyi. waaw mais moo tax it peut-être ñeneen ñi ñu ngi koy feetee ak ñun ñu ngi koy feetee moo bokkul. man moom laa bëgg wax moom laa bëgg a wax ma ne la ma ne la kan. Mhm. am na loo xam ne ñàkk respect. yuntu yàlla yeesa la. ñàkk respect ci moom dem ci conséquence di fecc yonte yonentu yàlla ni mu toll yonentu yàlla Iisaa ni mu toll nga dem ci concert di fecc naan maa ngi màggal yonentu yàlla Iisaa di lëmbal di sus waaw de moom ah gaa yi tëju ci appartement yi nga dem cité yi cité yi fekk boo yépp tëju ci appart fees dell ci appartement yi. Ah. xam nga man jour boobu dama gàmm ji woon jour 31 kan ah, dama gàmm ji. waxoon mooy mooy gàmmu yëmbal bi. waaw sunu gàmm gi. tuuti ma ñëw fa nag. waaw waroon nga ñëw. wallaahi da ngaa waroon ñëw. tuuti ma ñëw parce que foofu waaye kan séenu ma la fenn yow. <laughs> Ah, mel ni ah. waaye uh-huh. ay 4 heures ma matin may ñibbisi. Uh-huh. gis aseg naa si tey fi mu nekk noon uh-huh. la ilaha booy yi génn groupe yi génn groupe par groupe di génn xale yu ndaw jigéen ñi mais yow mais yow bi yàqu na. fa sa doom joo xam ne matagul 16 ans nga bàyyi ko mu fanaan ci mbedd mi. ndax daam est-ce que du yaay ji mooy cotiser pour mu génn yaa Oustaz Oustaz jamono gi toll na foofu de. mais réew baaxul. jamono gi toll na foo xam ne. parents yi nag yenn ah. way jur yi ñoo naan seen doom loo fi def. parents yi am da da ngaa loo fi def. parents yi nag nañ bàyyi xel ne am nañ responsable bu pire même jël xaalis bi ngay jël di ko jox xaale bi muy taal pitaal di tànqal nit ñi ëllëg yow mal xeyam yàlla dina ko rek ak yow xaalis bi xaalis bi dëkkandoo dafa am àq. waaw dëkkandoor daa am àq. nga jël xale bu ndaw mu dëkk ci koñ bi di sa doom nga yor xaalis rek jox ko. jox ko pitaal mu dem jëndit wala nga dem di wàcc papam dem wàcc jëndaale ko ay pitaal yu bëri mu ñëw di fekk maire yuy jaay caaf rek nga leen ko paap mu ne pëf. maire bi tiit bu demee ci bitig bi xool kii jënd balaa muy génn mu ne ko paaf affaire bi ne puuf maire bi tiit. wallaahi waaye yow kooku noonu nga xam ne <laughs> nga xam ne nga yàkka doo ci am duma yàlla duma yàlla nga ciy am lu jar bàyyi xel beneen bi ci des tamit nag ñu bàyyi seen doom yi di génn moo xam yaa ko wax wala waxu ko ëllëg yow mal xiyaam di nga ci am daan njol màkk nee na wuy jur boo gis sàmm la yow laa gisul woon rek waaye thème bi damaa bëggoon ñu waxtaan ko laata 31. te xoolal way jur boo gis sàmm la waaye bàyyi sa doom mu àndal góor goo xam ne la vingt cinq le vingt six la commandé la commandé la commandé protect pour lan 31 bi rek happy nice si appartement fanaan ci appartement yow wuy juram nga taxaw di ko xool mu ñëw ngeen naan ko naga naga naga seen feete guddi gi nu ngeen feete guddi bi xam nga am na way jur yoo xam ne war noonu sax di jur sax warul la leen wax dëgg fa yàlla parce que dañoo respecté wul yàlla joxuñu cër yàlla doom ak ji ci ne yàlla jox la ko ne la nag lenn laa bëgg ci moom lenn éducation charia njol màkka ne nag ku gis sàmm la wuy jur bi sàmm la ci doomam jabar ji sàmm la ci ay doomam moo tax nag nga gis góor ñi góorgóorlu nga xam ne ñoom Euh, xam nañ ne seen moromu góor ñi dañoo xaw a yéene ñu commencé nag ñoon di sàmm seen rakk ba mm-hmm. seen rakk génne rek ñu daw yaay yaa ko bàyyi mu génn kii fu mu dem dem jël dugalaat ci biir mm-hmm. ak a jaadu grand frère moo soof ak a jaadu mm-hmm. mu toog naan ko dafa soof bu nangemee nga dem bu nangemee nga dem moom it yaay ja am na am na loo xam ne maanaam kan bu jigéen di génn toujours di la indil saako pompiteer nga naan mu ngay lekk te ne te nay mut yenn mu ñëw jox jox la cinquante mille lekk te ne mut yenn mu ñëw indi ay gesneer jëndal la ko ngay waaj xew ak yooyu mu jox la te liggéeyul jigéen la kat. te laajoo ko fu mu jëlee laajoo ko fu mu ko jëlee ngay lekk te ne mut kay laa wax saaku ceeb bi bu jeexee mu ñëw daajal leen saaku ceeb jox xaalis ngeen jënd ngeen lekk te naan muut bis jot rek mu ñëw jiital biir indi. ne leen muut rek. ne leen muut xam ne nag fi mu jëlee saako ceeb fa la jëlee biir. suñ jëlee pomme de fa la jëlee biir fu mu daan jëlee cinquante mille yi mu lay jox guddi gi di la jëlal dibi ngay lekk te liggéeyul ah fa la jëlee biir bi waaye nag yëpp ñëw saako ceeb ñëw dibi di ñëw cinquante mille di ñëw pomme ñëw leer dara waxoo ci mu indi biir rek nga ne laay la foo jëlee biir bi da nga bëgg a tuutil sama kanami naaw la foo ko jëlee fan nga jëlee bi mhm. waa jaral laaj na gaañ yooyu yëpp nag tabaarakallaah wooy juri di ko doxee lu yàlla tere la léegi nag ñun teexle instant nag ñu bàyyi xel la du doomu yàlla mën nga ko wax feetee feetee juddu juddu juddu juddu yonte yàlla instant dara newu ci dara newu ci mais nag dafa am noo koy feetee da koy feetee ci lu yàlla bëgg waaye concert bi tëgg feccek yooyu yëpp nag moom comme lu xaraam la respect res amal ci am ci respect yonte yàlla instant ñàkk respect yonte yàlla instant moo tax 31 jot na 25 vingt 24 boo yi di iri rek di bàcc iri di bàcc doxul te luyee seen appartement seen sol yu bon di lu ma tiif doxul luyee seen appartement boo bongoo maanaam ñu leen di bongoowul naan avancé avancé doxul lii farata ji daal dëgg-dëgg mooy boo demee nag bay màggal doo judd yoon teel instant nga màggal ko ci lu neex yàlla comme ni nga ko waxee julli ñaari ràkkee gee caaju yooyu baax na comme ñun ni ñu ko defee dem gàmmu waxtaanee ko moom yonent yàlla Insa ci ni mu juddoo digganteem ak tabaarakallaahu euh, yaayam Mariam digganteem ba Jibril ñëwee Mariam wéetal gi mu doon wéetal yàlla waaye nañu respecté yonent yàlla Mariam waay. waxtaanee ko lu am solo la. Mariam ñu waxtaanee Mariam yàgg wéetal gu mu yàgg wéetal yàlla dem nag ba mu yàgg yàlla yëpp ak Jibril mu ñëw fekk ko fa ne ah sama borom de moo ma yónni. daf la bëggal nee na defal pour nga am doom Mariama ne la yow foo jógee da nga ma bëgg a sàkku yow xanaa sàkku la moo tax nga ñëw fi Mariama ne ko déedéet man a Jibril alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ma yónni pour fexe nga am doom mun ne ko am doom te aw ma jëkkër jaxasoo ma kenn yow xanaa ko da ngaa bëgg a ñëw pour sàkku ma mu ne ko sàkkuwuma la yàlla li mu def ma bind la te bind gi mu la bind mu jaarle ko ci nit noonu la mën a bindee koo xam ne ci yow dong la koy jaarle roof ko lan koy roof yëfu yàlla ba tabaarakallaahu mu jël ci ëmb ci saasi si nag mu juddu ba mu juddoo nag euh, yàlla di wax ma Mariam ne ko yàlla wax Jibril ne ko ba demee waxal Mariama ne ko bu bu mu yeggee bu gaa yi wax bu mu tontu na na tekk rek nam na ne tekk bu mu tontu waaye bi ñu ñëwee mu yegg si rek waa banu Israël gaaw buur jëm ci moom naan ko laa ilaha illallah yow yàlla leen wax da ngay wéetal yàlla fu ne nga dugg fa naan da ngay jaamu yàlla tey nga indil ñu biir bi foo jëlee biir bi foo jëlee lii nga naan dangay am doom ba ñëw yow yaa leen wéetal yàlla yow yàlla leen wéetal yàlla yow aqu haarun bi yow mbokk haarun bi lan la lan la foo jëlee lii Mariama ne tekki rek ñoon nag ña nga naan ko da ngaa ba ñëw indi fi biir bi da ngaa njaalu ba ñëw indi fi biir bi tax yàlla mi woote woon a jaamukate yàlla nga yow Mariama parce que alquran nee na Mariama ku mënoon jaamu yàlla jaamu yàlla ba yàlla di indi ay fruits yoo xam ne aljana lay jóge di ko jàlle ci jib jibril mu ñëw di ko ko jox mu koy dundee loolu mën a jaamu yàlla la te saison gi ñu nekkoon saison bu raar la mën a jaamu yàlla la mhm. te do ci domaine boobu noonu nag tabaarakallaahu lu jëfale ci domaine boobu mhm. léegi nag ba loolu amee gars yi dal ci kaw Mariama ne ko da nga ba indi fi doom Mariama ne mukk euh, Mariama tontuwul incha euh, incha nag moom mi ci berceau bi nga xam ne ñu ngi ko téye ndax yonent yu bëree bëri jaar nañ ci loolu tontu ci berceau Muhammad jaar na ci sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent yàlla incha ci boppam tontu ne man de jaamu yàlla la yàlla nag jaarle ma ci euh, Mariama mi yëgle ne nag man a Insa indi Abdullah doomu jàmm yàlla laa boo xam ne yàlla ma jàlle ci Mariama aw ma bàyyi daa leer aw ma bàyyi kéemtaanu yàlla laa bu ma yàlla jàlle ci Mariama loolu liir bee ko tontu liir bu tontu loolu nag dem ba màgg ci téeréem tawreet ñu bind fa lu mel noonu mu leer nañ ñeneen ju juugee fee évancé ko ñëw bëgg ñu indil nag nañu Insa doomu yàlla. te yeesa bi ñuy wax ne moom lañ daaj kenn daaju ko alquran moo ne yàlla ba ba loolu jàllee ci biir su bi la yàlla wax ne kii maa koy sàmm juddu na ci tee day génnaaw àdduna ci tee waaye génn àdduna ci tee ku ñu ku ñu daaj di nga génn àdduna ci tee daaj kon daaju yonte yonte yàlla yeesa kenn daaju ko loolu nag tabaarakallaahu na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax léegi nag domaine boobu bu ñu ci yeggee nag mën nga màggal juntu yonte yàlla Iisaa waaye nag maa ngi la bëgg ñëw ci aaya bi dama loon wax noonu rek aaya bi nga xam ne nag tere na ñu dem naan dañuy màggal li yonte judd yonte yàlla Iisaa ci ay conseil rek yi ni mel ndax yàlla moo ne léegi sax moom euh, daanaka gars yi dañoo xaw a farataalal ay 24 yi wala et cetera 31 bi rek bi xam nga 31 bi 31 bi li tax ñu koy xaar mooy iri rek la ñuy xaar. iri iri gi ñu ci nekkee. ba 31 jotee ñun ñëpp ñu iri. oustaz damaa gis ne. ku ci am gel iri nga ko sañ seen nga ko iri ko. damay jël exemple ci ci ci ci ci sama ci genre ci samay raq yoruñu ah, yoruñu mais dañoo dajale li ñu am as tuut ñi lii ñu luwee ko oto lii ñu luwee ko appartement te yoruñu wallahi benn guddi jaral na leen ko après bi ñu xëyee. dañoo ñaan ndékk parce que guddi googu jaral na leen ko. alors ku leexal mais kan say rakk nga bàyyi ñu dem defi loolu. li ma ci mën lu mu mën ci ñoom oustaz. ah loolu doxul ah. lu mu mën ci ñoom. doxul de. doxul de. ala kulli xaal dafa nekk loo xam ne phénomène la. te xale yi léegi yaa oustaz xale yi léegi yii génération bul faale gi. Uh-huh. lu ma leer ba leer ni bu fekkee ne par exemple. ñu ngi maanaam ñu ngi dem ci loo xamante ne lu bon la. Mhm. genre ñu gën a bari dañ ci jàpp te fullaal lañ koy daal di def. ah déet fullaal lañ koy def dem ba luwee oto. ok bu fekkee nag. 24 heures. 24 non oto kenn du ko luwee 24 heures. wala euh, wala lu oto 48 heures lañ koy luwee 2 euh, jours. waaw waaw. te euh, ngi doon laaj sax ñu ne ma te oto 31 am na yoo xam ne 5 jours lañ koy joxe. waaw dafa am oto 30 maanaam oto événement bu fekkee ne ñuy luwee oto ñoom dañ la naan. oto bi bu fekkee ni vingt cinq mille la doon génne par jour comme que trente et un lay la la la. quarante cinq mille wala lay génne wala quarante mille. non yeneen oto yi comme yu mag yi kat kat yu mag yi wala luxe yi ñoom ñuy génne cinquante mille par jour. Mhm. te ñoom par jour la. mais boole ko jënd essence bi. non non bokkul clé rek lañ lay jox caabi képp lañ lay jox yàq fay. toj vitre lu ngay wax taqal mar loolu la. moo tax 31 ci yi dox ci tali bi war nga xam ñii day dox de. am na ñoo xam ne genre booy yu amul benn responsabilité yu nekk ci talibi yoo xam ne dañuy dawal pour ñu gis leen ma parce que ñu ñu yàpp la xam nga boo ànd ak say xale yi. ci ginnaaw xale yi ci ginnaaw say copain ci kanam et cetera gars yi di yuuxu musique à fond doo xam lan ngay dawal. donc benn irresponsabilité bu nekk noonu te booy yi dañoo yor xaalis. te ñuy loué oto loolu la nga xam Oustaz beneen bi mooy appartement yëpp ay occupé appartement yi ñu doon joxee benn trente mille par jour dañ koy joxe benn cinquante mille par jour te nag caabi képp tamit lañ lay daal di jox vingt quatre heures wala quarante huit heures. ak dund yeeg ya ca aju yëpp ak dund yeeg ya ca aju en tout cas ñenn ñi Oustaz <laughs> danañ daal di dépenser lu ëpp lu ñuy dépenser par deux mois maanaam ñu dépense ko ci benn guddi parce que 31 la parce que événement la. di lu ñu gis ci ndakaaru cette année. di fecc di année bii lu ñu gis ci ay xale yu génn ndakaaru ci 31 gi ndakaaru comme tulli ak male place de l'Obélisque. Uh-huh. oustaz place de la nation. Uh-huh. oustaz euh, place du souvenir. Uh-huh. oustaz. place de l'indépendance. oustaz oustaz Ngor oustaz Gorée. oustaz ñun maanaam dëkk bi non 31 nañ nag. ah ndaxte le maire Barthélémy Diaz on le félicite ah donc de passage parce que dafa orne Dakar comme ni mu ko war a defee Dakar vraiment bu bu fekkee dugg nga ci guddi même actuellement nii la décoration est toujours là-bas même actuellement boo duggee Dakar guddi da ngay xam ne dakaar comme Paris ñeewuñu leen ci cadre décoration wala et cetera nag des fois dafay baax. comme yow mi nekk maire en en un mot nga genre nga nga bëggal sa askan ci li nga yor je pense que pour embellir la ville c'est c'est c'est c'est très cool loolu il faut le saluer quand même quoi qu'on puisse dire même bu fekkul du 31 wala et cetera autre alors que ne Oustaz dem nga place de de de l'indépendance. place de. l'indépendance. mos naa place de l'indépendance wala l'obélisque laa demoon. ah d'accord. waaw nga bis ma nekk ma nekk fenn. dañoo demoon ba manifestant nag moo ma fa yóbbu woon. mbaa hmm. du caricature Muhammad hmm, sallallahu alayhi wasallam. bi ak daara yi. ba ñu kiyee seen daara yi. Hmm. góor jigéen gi. yooyu yëpp dem leen. dëgg buñ ñu ci buñ ñu ci buñ ñu ci buñ ñu. buñ ñu ko yëgee buñ ñu ko yëgee. waxuma woor sax woo sax waaye buñ ko yëgee dañ fa war a bokk ci ñi fay jiitu. ndax loolu mooy farata ji. parce que am na yenn domaine yoo man yooyu ma fay yóbbu de. <laughs> waaye xam naa ne <laughs> yeneen moom du ma ko du ma ko. du ma ko fa même fekkul fête bi genre mën nañ ko gis ci ay images par exemple ah, Aline Badara si si si si y a des images qui sont qui qui qui qui sont disponibles am na ay images yoo xam ne oustaz boo ko gisee dangay xam ne Dakar dafa rafet. man rafet rafet boobu yow man a décorer non maanaam. maanaam nouvelle année par exemple xam nga jóge na ci Noël mais nouvelle année bi est-ce que ñun itamit c'est vrai même bu fekkul du suñu at. atu jullit ñi mais ñun. nañ mu rafet man moo yàlla gi laay wax li sëñ daam naan moo yàlla gi mooy yàlla gi nañu ko bàyyi nañu bàyyi mooy mi laa wax mooy yàlla gi nañ ko bàyyi tëju ci gi yi de décembre ay xale yu ndaw di su lëmbal ba suba teel di wéet ci duus yi lavabo bi palaago bi ci kaw kaw étage ba ca kaw suuf balcon yi mais yooyu yooyu la war a wax mooy yàlla yooyu ñu ba ko mais man décor yeeg mu rafet yeeg. mu jekk yeeg yëpp waxuma ko. Ah, ma macha allah rafet na. sa décoration bi biir Dakar macha allah. baarakallah quoi qu'on puisse dire. nice na ah? na moom tabaarakallah biir Dakar yow Oustaz. nice na xale yi dem fa di photo ànd ak seen njaboot am na ñoo xam ne Oustaz 31 décembre bi du ay cadre dem appartement non noonu mais dañoo jël seeni njaboot dugal leen ci oto ñoom ñëpp ñu yóbbu leen dakaar ñuy photo pour fêter année année bu bees bi même bu fekkul sax du suñu année. mais ñun mënuñ ci dara parce que tey jii buñ nee buñ nee genre buñ nee tey jii mercredi dañ naan mercredi le 3 janvier ñun moom lañ koy compter boobu en tout cas man weeru weeru julli di fayu ma man. man sama salaire kenn kenn kenn wéeru ko ci weeru jullit yi oustaz man de sa fel salaire rek yooyu yëpp ci àdduna bi la def dañ koy lekk loolu yëpp na tudd ci adduna bi la def Haza Town oustaz Haza Town ah kan place de l'indépendance décoration bi yëpp rafet ah. man li ma wax mooy mooy yàlla gi ah, baax na baax na te lu fi waay sos nag ba nit dem ci mooy yàlla ëllëg dañ ci am sa sa sa sa santaas waaw chantage moom da nga koy am. Mhm. amul amul amul di. amul amul nu mu mënta demee. xoolal lii xoolal lii Oustaz Oustaz xanaa génnoo Dakar gi. man 31 bi damay gàmm ji Rasulullah laay waxtaanee. waaw d'accord mais lii genre mais lii avant 31 parce que lii depuis. depuis non man fii nag gëj naa fi place de l'indépendance yi naa fi daan fa dem nag. Mhm. romb rek jàll waaye gëj naa fi. Mhm. Ah, ok d'accord d'accord Oustaz j'ai juste une question par rapport à Aline. bu fekkee aaya bi nag ci naa ci ñëw waaw d' accord nga ci hmm. ñëw dama am juste benn question ci euh, mandate jullit ba tey jii ci wàllu feet yi oustaz ñun farataaluñu jàngale yu gën a bari yonent yi ñun lu ci ëpp ussage yi bokk ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp la ñu daal di yem te doy na nag wax dëgg fa yàlla doy na waaye comme que dañoo gëm yonent yëpp am na ñoo xam ne xamuñu histoire Souleymane am ñoo xam ne xamuñu juddam xamuñu génnam àdduna am ñoo xam ne xamuñu Isa sax naam mën nañ ko xam parce que lu bari dañ koy daal di dégg tey tamit ay histoire day répété chaque jour mais ñoom Haaruna yaa Oustaz. ci gën a bari ñoom ñoom Yuusuf Ibrahim Yaqub yooyu. non yooyu. Loot ñun seeni juddu. waaw yooyu nag yooyu nag man juddu. waaw man boog man boog laa wax man kan man baraana man fu ma ko dégg man laataa sax man ma ñëw taxaw di wax. te yàlla luut waxtaaneen ko ba dégg ba ba taaj ma dégg te yàlla yunus te yàlla ibrahim kooku booy na suñuy nopp te yàlla Iisaa kadaalika te yàlla Muusaa moom booy na suñuy nopp te yàlla Suleymaan ak ni ko waxee pouvoir geek yeccaaj kooku booy na suñuy nopp léegi ñoom léegi yàlla Yaqub léegi ñoom yàlla Ayuba léegi ñoom seen anniversaire Daawuda seen anniversaire duñ ko feete ñoom waaw loolu loolu loolu xam nga xam nga loolu yëpp domaine la rek domaine moo tax nag genre am na nay ñoo xam ne par exemple bu ñu nee ñoom dañuy feete juddub yonent yàlla saa dañ leen koy nangu. waaw ko dañ ko bañal kenn bañaluñu ko kenn de mais ci feet lu neex yàlla la ñu wax. feet nag yeesaay dafa am lu ñuy woowee ci guerre ay dommages collatéraux. manaam guerre gu ne dana am ay dana am ay dégâts boppam. ak nu mënta demee respect pour yonent yàlla Isa ñu respecté ko. Mhm. am na yoo xam ne ñàkk respect la pour moom. kon bis boo xam ne dañu ko jagleel mooy yàlla mi rek mooy yàlla mi rek ñu ne ah, ah mooy feetu yonte yàlla Insa bis ba mu juddoo mel ni bis bu njool maag bu yonte yàlla Insa juddoon juddu bisu mooy la du bisu mooy yàllaa yebal jibril lefa yi def ak euh, Mariam jox ko lan koy jox mënte Mariam juddu ñu ne bis bi bisu mooy la di mooy rek jullit bu leen ci jàppale nag yëgal ne teggi nga waxu yàlla jàppale maanaam. ah dem dem da ku dem feet rek jàppale nga leen. njol màkk ne na man tasa ba xaw ma fu mu mindu kuy nuru nuru lu aw nit ca seen biir ca ñoom nga yaa nga ca. Hmm. waaw kuy nuru nuru lu aw nit yaa nga ca ñoom boo newee di def yëfu ñoom la def ca ñoon nga bokk hmm. boo ñëwee di def li jullit di def ci jullit li nga bokk hmm. ba ci góor jigéen bi. góor gi buy def yëfu jigéen jigéen la jigéen bi buy def yëfu góor góor la góor jigéen la jigéen góor ndax jol màkk moo ne man tasabax qawmun fa huwa minhum kuy nuru nuru lu aw nit ca ñoom nga nga fekk nag aw nit toog ne dañuy concert 31 décembre dañu koy feete nga buuree fay xamoo lu xew yëpp dugg ne danga koy feete yaa ñoo yem ah ba nga ciy génn nag. buñ la invité nag. yaa ñoo ma bu ñu la invité. ñool màkk yàlla ñool màkk def ne. fexe leen ba di fekk lu baax di toog ci bërëb yu baax. xaraam na dëgg-dëgg ngay toog ci bërëb yoo xam ne bërëb yu baaxul. xanaa xamoon naa fekk sax dañ la teral nga toog ak moom. mais oustaz. fête 31 yi ngeen di jël ngeen koy def ay ay daayira nag. rasulullah la ñu koy jegleel ak yonent Yàlla Iisaa. jour 31. waaw xam nga toog naa fi da la yëgal sunu gàmb gi nga ne est que da ngeen taal da doon taaral bis bi di mais kon yéen da ngeen di màggal bés bi. maanaam ñun bis bi dañu ko du ñuy tere màggal bis bi. 31 décembre. 31 décembre ñu war a jeexal bi ñuy duggaat ci beneen année. 31 décembre dañu koy ñun xoolal samedi yëpp dañu koy màggal ñu. waaye mais 31 bi samedi yëpp bu gaa yi nekkee ci congé yi. ñun ñu ne ci rasulullah 31 bi nag bokkul waa déglu ma 31 décembre. juddu kan la. juddu kenn 31 décembre année bu bees dong la. 30 décembre. waa euh, jeexal waa waa waa dëgg déglu ma wax la. gaa yi dañu ko cee bàkkal ba jeexalu année lu mu ci mën a doon. bàkk nañ ko ci jëme ci yonte yàlla Insa. léegi samedi boobu rek. ñun nag samedi la woon yéen ngeen def ñun nag ñun ñun nag dañ fay jaaree màggal yonte yàlla Insa yonte yàlla Insa ci màggal gu neex yàlla ci daraja Rasul nag. beneen bi ci des ci 30 décembre ci 30 décembre. da ngeen mënoon ko def ci beneen bés. beneen waaw defuñu ko foofu nag foofu lañ koy daaj. ci 31. fa 31 bi fa lañ nañu ko dëj. kon kay da ngeen doon xool nag ñi nga xam ne dañ la gis nga 31 boobu gis nga gàmm googu. Oussa pétale jugu fa loolu dama lay nekkuma fa waaye ndax pétale jugu fa. pétale pour lan. ah minuit bi mu jotee fa. minuit ba ba jugee ba mu jotee xam nga lu jug. Ah. xam nga lu jug. waaw ah. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi moo jug ca kaw. 31 ngeen ko def. waaw waaw. boobu noonu nga gis noonu. bëraa na ñoo xam ne couple lañu doon def dem Dakar. waaw la am na. dem Nangam fa la ñuy fanaan léegi. Ah, ñun définitivement ci gàmmu gi la ñuy fanaan. pour walla rek pour walla avancement bi mu am bërëb bañ ko loon defee mbedd ma xajatu fa. ñu yëkkati ko de yóbbu tëli ko daba muy lu gudd lool xajatu fa. ñu yóbbu teeree bële xajatu fa. ñu yóbbu ko léegi nag fële di xaar stade bi pare stade lañ ko jëmee nag. te bëgg nañ bu soobee yàlla stade bi mu pare ñu teg ko fa tribune yi fees. mu fees del ñu toog di bàkk yonent yàlla Muhammad yee waay yëmbal di bàkk yonent yàlla Iisaa xam nga loolu maanaam maanaam maanaam ñi nga xam ne dañ doon dem feneen di mooy yàlla définitivement dañ koy baax ne foofu nag di ko xaar am na góor ñoo xam ne seen jëkkër am na ñoo xam ne ay góor leen seen jabar yi ñoo leen feeñ di laa wax léegi fa la ñuy 31 décembre rek ci gàmm ci gàmm gi léegi gàmm gi noonu la ko tuddee gàmmu 31 gàmmu annuel le 31 décembre. bi mooy deuxième édition soppe Mawlaay Abdou Aziz Ndiaye ma deuxième lan yàgg na. Oustaz maanaam yéen 31 bu ne da ngeen koy. 31 bu ne dañu ko dëj moom. da ngeen koy féete waaw féete. soppe Mawlaay Abdou Aziz Ndiaye ñooy ñëw ñoo ko organisé. ànd seeg Mawlaay Abdou Aziz Ndiaye sëriñ bi sëriñ Sidi Ahmada si sëriñ Sidi Ahmad si Jamil ñëw toog nag li yàlla wax ñu waxtaanee ko. dolliwaat nit ñi ci yàlla li mu wax. ñu dem góor ca nag. daw 31 ba 31 ba ña ko doon defee fee sax ñoom ñu ngi ñëw di ñëw ñun fekk ñu wuñ kenn dañuy ñee ñi commencé fekk si te la ko wax gën a dem ca kanam rek ab mun a ñu dolli ay baas baas day fees del nit ñi dañuy ñibbi taw ba sonn dem ñibbi pour nalawi ñeneen defaat groupe di ñëw. Ah, est-ce que ñooñu jógewuñ. Dakar jógewuñ fa de <laughs> jóge. yaa ne 4 heures du matin ñi nga xamante que ñoom dañu romb bâche bi rek day fees dell nag ndeysaan nit ñi toog taxaw fees dell wër mu ñu mu bëree bëri du ñu am fuñ toog ndeysaan te ku bâche ay 10 bâche yoo xam ne ay bâche bâche euh, lu mu tudd ay 16 mètres la mm-hmm. loolu loolu xam nga ne gars yi ndawul loolu ndawul ndawul mu fees del ba nit ñi ñëw toog tabaarakallaahu ñuy demaat di wuteet ay 16 ak nit ñu dugg ci loolu nag tabaarakallaahu li ko waral mooy nit ñaa ngi commencé yeewu booy yi nag ñoo yeewuwul booy ñii feete anniversaire kii kii ñii la ñii la rek ñii ñu toll ñii waa ñii ah, ay ay mag la ñii mag ñi nag c'est que léegi dañ leen yeewu nag dëgg-dëgg nag xam li yàlla wax fexe nañ ñoon ba trente bu jotee ñu bàyyi lépp dem tabaarakallaahu dëgg-dëgg nag seet yàlla heure baa ngay waaxu te ñu waxuma ci aaya bi kan xaw ma da bañ ma dugg ci aaya ba xaw ma <laughs> te faaw ma firi ko kan yàlla moo ne al adlu ma al ahlil kitaab li nabiyihi maanaam yàlla daf ne yéen ñi nga xam ne njabootu rasulullah yi ngeen mandu leen ci feeti keneen point point yàlla it wax ne nag mu ne xoolal déglu leen wa dalika fa doon wastaqim kama amirtu fexe leen nag ba lii ma leen digal jub leen ci comme ni ma leen ko digalee istaqim la wax istaqim bi maanaam wastaqim istaqim kama umirta comme ni ma leen digalee ne mandu leen ci 31 décembre ci feetu ay conseil ak yi ni mel feetu jàmbur 24 25 yàlla na nag loolu laa bëggee nag ngeen jub ci ma bëgg ngeen topp sama ndigal la wax waaye ku fi bàyyi ndig ndigalu yàlla nag dem ci ndigalu tabaarakallaa ko koo xam ne moykatu yàlla la yaa koy yëg ñiy woote concert ñëpp 31 25 bu ñu demee yàlla dina leen duma xanaa ñu jéggalu yàlla ndax yàlla moo am problème boo ko jéggalu mu bàll jéggalu rek nag moom jéggalu nag dama ay ah, dafa am i sart sart yi mooy dootoo ko defaat te rëccu na nag moom <laughs> yaa nga defoon waskur dunóobaka wab ke xaa yaa mus ni bu wadkur mun naa xastali xisaab waaye waxuñu ne nga ne nga da nga def concert nga dégg laa ko ñu wax nga rëccu pare déwén nga organiser waat bi nga li yàlla dara am ci kon yàlla ne maa ngi leen di diggal ne ngeen mandu ci li ma leen digal ndax beneen bi alquran def ne wa man yataada wududallahi faqad zalama nafsuhu dafa am frontière yoo xam ne yàllaa ko teg frontière baa ngi ku ko jig yàlla nee na ma duma la ni koy waaji di firee nag firi bu xoolama frontière yàllaa ngi teg naa ko ku ko jig ma duma la xam nga mooy lan rëdd naa sama rëdd loolu temps booy gars yi duñ ko def rëdd naa sama rëdd ku jéggi sama rëdd ma noq la mm-hmm. yàlla nag moo ne moom rëdd naa ma rëdd rëdd baa ngi ku ko jéggi ma duma la mm-hmm. tilka huduudullaahi falaa ta'taduuhaa wa man yata'adda huduudallaahi faqad zalama nafsahu xam nga zalama nafsahu mooy lan mm-hmm. tooñ nga sa bopp nag tooñ sa bopp boobu nag ci leen léegi yàlla di duma léegi nag yàlla ne jub leen ngeen def comme ni ma leen ko digalee wala tattabi'u ahwaa'ahum d'accord oustaz oustaz ñu ñu ñu ñu ñu ñu ay waay bi ñu yemale ko fi oustaz aaya bi wala tabi awaahum waxtu bi dab na ma bul topp bànneexu ñu ñu lay woo concert <laughs> buñ la yóbbu <laughs> oustaz jërëjëf ah aca oustaz wala tabi awaahum loolu lay firi d'accord mais euh, lii dañ koy waqul amantu bi ma anzala fi kitaab wa umirtu laa adila baynakum mandul ci yëfi yéeféer yi nga dem li yàlla digale nga nekk ci bul topp seen bànneex. yàlla na ñu yàlla bul sa bànneex. yàlla na ñu yàlla de yenn saay yi nag foog nga topp sa bànneex euh, ndaxte da cay baax tuuti <laughs> maa ngi lay bàyyi nga tàggatoo Oustaz bi. tabaarakallaahu macha allah am nañ mbégte ñaan nag tabaarakallaahu lépp loo xam ne rek wax nañ ko muy njëriñ ndax nag tabaarakallaahu lu ñu fi teg mooy bëgg di wax njëriñ toujours nit ñi jëriñoo ko te tabaarakallaahu bëgg di leeral ba mu leer rek moo tax sax gis nga aay bi ba léegi sax dugguñu ci ndax leeral TV nag war a leer dëgg la leeral ñu ñëw leeral dañ fee toog nag tabaarakallaahu ngir leeral li ne ci téere bi leeral nag tabaarakallaahu li alquran wax dëgg-dëgg nag ci taxawaay boobu ñu wax nag tabaarakallaahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu sopp yëpp di bëgg ñëpp mbokk yi nag maa ngi leen di fàttali insha allahu taala le 7 janvier insha allahu taala fële ca Kanta mhm. bis bi nga xam ne nag tàkkusaanu sëriñ Babacar Si la mhm. ñu jegleel ko suñu waajur boobu tabaarakallaahu euh, Muxtaar Ñang ñu gën koo xamee ci sëriñ Ñang ay doomam ay sëtam ay jarbaatam di njabootu yontu yàlla Muhammad di ko def waa dëkk ba yëpp Kanta ñu ngi invité waa Kanta yëpp yemuñu ci ñu invité Kanta ak li ko wër Kaba Medina Njaay Kundaak mm-hmm. euh, Bayti ñëpp ñu ngi leen invité ñu ñëw nag tabaarakallaahu ñu waxtaane Seydina Muhammad le 7 janvier insha allahu taala bu soobee yàlla yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm dama droité station euh, Tamba waaw am ku ma ne ana ah, oustaz est-ce que wallaahi est que am ku naan Oussa ma ne ko mu ngi fi mu ne waroon nga ko indaal de ma ko mu ne Oussa boobu neex na de est-ce que neex kay <laughs> kon macha allah Oustaz yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwén fois donc ci année bi ba tey man ah, année 2024 la 2024 année ci ñi ci euh, ñuy kontaan bu baax a baax yéen téléspectateurs yi ñu doon suivre boobu ba tey ñuy gërëm képp koo xamante ne jàppoon nga ci mbir mi ba mu daal di yemb Paa Omar ne nii moom moom moo nekk ci euh, son bi ñu ngi gërëm ki nga xamante ne moom mooy euh, ABC euh, Adja Astou nag moom dafa xaw a jagadi yaram ji neexul. te ñu ngi koy ñaanal jàmm fu mu daal di nekk yàlla jug ak jàmm ki nga xamante ne moom mooy Matar itamit ah, donc mooy suñu technicien de son moom dafa feebar yal na ko yàlla may saafara Matar dama koy dama koy woo rek duma ko jot dafa feebar bëgg ko masawu dëgg dafa feebaroon ba entré donc yàlla yàlla may jàmm ci fu mu daal di nekk ñu ngi koy ñaanal képp képp koo xamante ne yaa ngi doon seetaan boobu ba tey ñu ngi lay jaajëfal di leen jox dig daje ba suba ak saada incha allah